Oppo. Hey! Chill now. I was over. Oui, votre courage, votre façon de faire. Monsieur le maire, recevez les honneurs présentés. danañu euh, leen xamal ni jéemoon nañu tamit nag jot euh, yeneen maire communes yi yàlla dafa dogal moom mi di maire Aline Sow bi ma leen mënulee jot ci wàllu téléphone ak yooyu moom def na ci wàllam euh, le maire Bassirou Diop dafa nekkul Sénégal ki nga xam ne nag moom mooy Lamine réussirul jot ko xëy na loolu moo waral Euh, lamin nekku fi mais pour wax leen rek ni leen bëggoon nañu bu ñuy yaatal mbir mi mu doon ci teewaayu ñëpp ndax mbir mi pour waa Thiès yëpp la euh, kon xam naa bu fekkee ni colonel Samoura jotal na ne ay kàddoom ba noppi ba nu jox jéeme ba noppi dinaa jox le maire Alioune Sow balaa ñuy tëj mën a delluwaat ci liggéey bi euh, waaye lu jiitu loolu am na kàddu yu nga xam ne kàddu sant la muy sant d'abord yàlla mi nga xam ne moo waral loolu yépp euh, nga xam ne lii daanaka lu mat ñaari at a ngi nii mbiru projet bi nga xam ne dafa tuddoon cinquante partenariats pour le climat bi jëmoon dañ ko waroon taxawal avant 2015 ñoom xalaat yi dafa waroon a mat avant 2015 ñu nekkoon ci ak allemand yi ndax gouvernement fédéral allemand moo jëloon décision pour contribuer ci combat contre pour l'atténuation et adaptation au changement climatique mu bëggoon lu tollook juróom fukki commune ci Allemagne kenn ku ci nekk am partenaire ci yeneeni gox ci àdduna bi mais partenariat boo xam ne dafa lalu ci luy sellal jaww ji jamono boobu fekk na Thiès ak Zolingen amoon ay relation mais relation yooyu amitié la woon euh, ñu nekk di ci liggéey waa Zolingen di ñëw Thiès seeni technicien waa Cees di dem solingan di daje di waxtaan di daje di waxtaan ba tënk bokkandoo benn vision ci lan la ñu war def nga xam ne projet bii ñu ni moom moo war a tàmbali te ñu di ko lancé officiellement tey projet boobu ñun ñoo ci waxtaan ñun ak waa Zolingen euh, gëstoondoo ko ba tegandoo ko ci la ñun ñoo demandé ndoo tamit financement bi ci gouvernement fédéral allemand gouvernement fédéral allemand ginnaaw bi mu càmbaree yépp suñu bos bokk ci yi mu nangu yi mu nangu ne méngoo na ak loolu jëm ci atténuation ak adaptation au changement climatique ñu jagleel projet bi à trois cent mille euros muy deux cent millions de francs CFA yoo xam ne ginnaaw 15 millions yi lépp ci gouvernement fédéral allemand lay jóge leneen li ci des diggante Solingen mi nga xam ne mooy bénéficiaire initial bi la ak la ville de Thiès bi bénéficiaire secondaire loolu nag gouvernement fédéral allemand bi mu koy def def ko jaarale ci kuréel bu ñu tuddee engagement global bu nekk foofu boo xam ne gouvernement fédéral bi dafa am confiance ci moom am lu mu xaatim ak moom ñooñu war koo doxalal mbir mi ñooñu ñoo doon organiser daanaka daje yiñ daan am yépp ak ñoom bi nga xamante ni loolu am na engagement global dafa signer benn contrat ak la ville de Zolingen pour tënk lan mooy devoiru ville Zolingen bi nga xam ne mooy bénéficiaire initial ak lan mooy devoiru Thiès bi nga xam ne mooy bénéficiaire secondaire ah ginnaaw loolu ñun tam ci Thiès bi ñu jotee contrat boobu ñu xaatim beneen boo xam ne dafay méngoo ak boobu mu dox ci diggante ville de Thiès ak ville de Zolingen nga xam ne relation bi léegi entre ñaari villes yi yematul ci amitié muy xaritoo rek léegi dafa nekk jumelage ndax dafa am lenn loo xamante ni jumelage rek ci cadre jumelage nga ko mën a doxale kon léegi diggante ah ville de Thiès ak ville de Zolingen yematul rek ci amitié léegi jumelage la loo xam ne sax lu Thiès xaatimoon la bu yàggoon bëggoon ko waaye ñoom ñi ngi koy doog a nangu ci weer yi ñu génn ndax dafa dajeeg ñu am équipe municipal bu bees foofu boo xam ne ginnaaw bi mu gëstoo liggéey ba ñu def ak ñoom ci at yi ñu génn ñoom jaral na leen àgg foofu kon ñu daal di war a liggéey kon benn contrat diggante ñun ak ville Zolingen contrat boo xam ne dafa wéeru rek ci engagement yi ñu jotoon a jël ba noppi loolu ba ñu ko defee ci lañu am buntu nag jël li fi newoon avant muy comité de pilotage bi yore woon cinquante partenariat bi nga xam ne ah jaadu na nag xëy na am na ku fi tey ci jëmm ñëpp amal ko ngërëm muy madame Oumou mbay si mi nga xam ne mooy chef du service régional de la planification ndax nag moom moo jiite woon li nga xam ne mooy comité de pilotage bi vraiment yore ko depuis début bi boole ci xarañ boole ci Pastef boole ci engagement bu mat sëkk ci biir comité boobu euh, mu bokkoon ci ah commune yëpp vraiment ñi yore service technique yi amoon nañ ci engagement bu mat sëkk rawatina Mapaté Bousso ak Moustapha mbay bi nekk commune ouest euh, ñooñu ñëpp engagé wu ci ànd ci ak université ànd ci ak ay organisation société civile ADT GERT mi ngi ci woon mais association bi nga xam ne aussi moom mooy cosaanu euh, lii te nekk ci diggante euh, allemand yi ak ceesuwaay yi te ci côté allemand yi Otmar Schick nekk ci ci côté ceesuwaay yi Henri Tine nekk ci association boobu aussi yaakaar naa ni ba mu tàmbalee ba léegi loxo mos cee jóg te di wane nañ ci Pastef bu mat sëkk ñoom itam bokk nañ ci comité de pilotage boobu alors comité de pilotage boobu nag moom moo devenir li ñuy tuddee comité de suivi di projet maanaam ni mu jiite woon xalaat bi conception bi gëstu bi ak orientation bi ngir projet bi mën a nekk noonu la fi war a continuer nekk di saytu projet bi mais maintenant nag projet bi dañu taxawal dans le cadre de ce contrat là nous liant à la ville de Zolingen li ñu tuddee unité de gestion du projet mooy bi colonel Samoura jiite alors euh, unité de gestion du projet boobu nag li tax colonel Samoura jiite ko yaakaar la ngir moom maanaam projet ba mu tàmbalee ba léegi moom moo ci nekk maanaam ci biir liggéey bi lu ci bëri loo xam ne ci wàllu opérationnel la daanaka moom moom moom moo ko moo jiite woon gëstu boobu ñeneen ñi fi nekk te dina leen tudd am na ci ñoo xamante ne depuis le début ñu ngi ci woon comme ñoom jum ak ñeneen ak ñeneen mais loolu dama koy bàyyi mu dugg ci yooyu maanaam projet bi nu mu tëddee yan action la ñu war a def lan la ñuy xaar ak lan la ñu bëgg mu jur loolu bu ngeen seetloo dugguma ci parce que dama ko bëgg a bàyyee bàyyee mbir moom alors kon comité de suivi moo taxaw du projet dirigé par la présidente Oumou Mbaye Sy ak unité de gestion du projet dirigée par le coordonnateur euh, le colonel Abdourahmane Samoura alors kon tey mel na ni bis la boo xam ne bu am solo la pour Thiès li ci am rek mooy ñii nga xamante ni am na lu tegu tey jii ci seen ndodd dafay jaadu ñu ñaanal leen suñu boroom orienté leen xelal leen jubal leen teg leen ci yoon woo xamante ni waa Thiès fii ak ñetti at yi nga xam ne moom la projet bi war a durer danañu gis résultat wu li tax ñu woote lu mel nii. ñuy xaar euh, monsieur le la ville. d'abord maa ngi lay nuyu di nuyu euh, la secrétaire municipale qui est là di nuyu les directeurs ou chef de service yi fi nekk yëpp euh, di nuyu le colonel Samoura doyen Diémé euh, di nuyu la sécurité et les agents yi ñu fi nekk yëpp di nuyu particulièrement vraiment le personnel subalterne mooy agent yi fi nekk yëpp di liggéey dans l'ombre c'est important ñu leen di féliciter di leen nuyu à chaque fois bu leen fekkee peut-être ñu ñoo nekk ci kaw mais liggéey bu métti bi yéen yéen koy def di nuyu vraiment ñi fi ñëw ñëpp te Thiès kese ñor leen li mu ci wax te mën nañ ci citer le docteur Ndiaye euh, di féliciter wu ci ñëw bi fii di wax ni aussi mën naa wax au non des autres maires parce que euh, Pape Diop la a pris l'avion hier pour dem ci journée Cheikh Ahmadou Bamba le 29 aux États-Unis Lamine aussi j'ai pas pu le mais di wax ni rek. même monsieur le maire de la ville soo waxee ëmbaale na ñun ñëpp ci projet yu mel nii parce que ça c'est c'est pour les Thiessois euh, di wax ni tey am na ko fi manqué te teew fii li mu wax léegi et c'est important ñu féliciter ko c'est madame si vraiment projet bi ma li ma ci fekkee yëpp euh, je parle sous le contrôle du colonel ak yooyu joué na ci euh, aussi rôle bu am solo féliciter aussi le colonel ci liggéey bi muy def nii parce que depuis quelques jours mayuñu ko jàmm ci liggéey bu xaw a mel nii ñu koy seq fii ci sortie Thiès bi ci mbalit bi pour vraiment planter des arbres sur quatre cent mètres ba fexe nëbb euh, àll bi parce que monsieur maire projet bi c'était ñu murer ko sur quatre cent mètres mais on est tombé sur des problèmes yu xaw a kii parce que on dit que mbalit mi euh, commune de Fandène ñoo ko moom donc munuñu murer commune jàmbur mais au moins sortie bi mën nañ ko sauvegarder te ci projet yu mel noonu comme bii nga wax ni je crois que Thiès waaye dañ ci war a retrouver autour de l' parce que kuy génn Thiès jëm Mbour vraiment image bi dara rafetu ci donc ñun on avait décidé de mettre 14 millions déjà en place pour murer ko mais tey fandeen taxaw ni moo ko moom donc yu mel noonu la ñu war a jóg parce que même bu ko Fandène moomee je crois que tey décharge bi lu war a mën a dugg ci biir Thiès la ñu mën ko encadrer defar ko mu rafet parce que kuy génn Thiès fii gàcce ngay am je crois que ñun dañu ñëw pour relever de défis et que njiit nag euh, boo li euh, yàccaaralee tu ne feras lancer ay défis ba pare rayante pour relever ko je crois que Thiès mu ngi félicité wu ci euh, tey ji maire yi fi nekk yëpp ci lu mel noonu di remercier di félicité wu aussi ci service yi moi je dis que service boo ci dem administration bi concurrence moo fi am pour que seen commune ou la ville ou le département féete ci kanam te loolu je crois que c'est de bonne guerre képp ku ñu dénk mbir da nga war a reyante pour nekk premier di féliciter nag aussi ni ñu koy defee muy de manière très saine et ça c'est important parce que dañuy seetlu euh, man mes chefs de service dañuy ñëw di ma rendre compte ne woo nañ leen ville ci réunion yu mel nii surtout Moussa Fambaye mais su ñëwee je l'encourage et je le félicite il le fait pas pour Talla il le fait pas pour Aliou Sow mais il fait pour la ville ci am solo boobu daal la ñu bëgg vraiment ñëpp euh, euh, engagé wu ci pour que Thiès mën a jëm ci kanam di wax nit ñi aussi ni képp ku ci mën a rayante ba rafetal pour que cette unité là continuer pour que Thiès gis ci boppam bu baax a baax a baax maire yi fàtte tuuti seen bopp mooy li gënal ñëpp te mooy li gënal Thiès waaye allahumma salli ala sayyidina muhammadin